déjà jalgati commencé na am parce que vous avez parlé de Ousmane Sonko boo xam si ne dafa mandaté quelqu'un pour mu dem jëli parrainage dégg nga dégg nga li ci am lépp ak li ci xew donc joxuñ ko fiche de parrainage pour moi man loolu ñun niñ ko jàppee c'est des questions de politique tout simplement yoo xam ne si ne ça bafoue la démocratie daf ñuy delloo ci ginnaaw également dama jàpp ne loolu c'est le droit le plus euh, absolu pour quelqu'un boo xam il veut participer en quoi la direction des élections a une prérogative de refuser à quelqu'un de prendre des fiches pour ñu bokk pour des motifs de dissolution de, dissolution de parti politique tout simplement aujourd'hui la décision également et en en justice ñu ngi koy topp donc ñoom ñu ngi def seen i recours voilà donc xamaguñ ba xam leen am dëgg xamaguñ ba xam duñ am dëgg mais lu ci mën di am rek mooy dama jàpp ne fi réew mi toll waroon nañ ko mën a bàyyi ak son mandataire mu jël son fiche maintenant quand il s'agit de valider la candidature waaw waaw fa laa fa a ñëwaat c'est-à-dire bëggoon naa ñëw demoon ci doublon ak cerne yi parce que est-ce que yéen a préparé wu benn ci doublon ak cerne yi parce que la plupart donc ñi nga xam ne ñu ngi ci opposition dañu jàpp ne doublon ak cerne yi ndëgg ndëgg sërëx la ban point ngeen ci am deuxième bi yaa ngi wax ci affaire Ousmane Sonko c'est-à-dire c'est vrai que processus la à la fin conseil constitutionnel moo war a moo war a valider wala invalider une candidature mais jamono ji koo xam ne dañ la radier est-ce que c'est normal aussi demander une liste aussi maintenant également il faut qu'on se pose euh, des questions est-ce que c'est dans une voie normale ah, mais loolu cette question parce qu'il y a la question de contumace également du point de vue moo donc il faudra il ah. revenir sur cette question d'abord pour pouvoir parler de l'autre question aussi la progrès c'est la raison pour laquelle je par rapport à la prérogative de la DGE. en tant qu'une structure chargée des élections. la DGE lan e, la def la DGE lan la def la DGE refu dafa refuser donner tout simplement c'est-à-dire la DGE foo ngeen xam ne jëlul acte. ne lii ak lii ak lii ak moo tax les avocats de Ousmane Sonko c'est-à-dire jëlu acte ñëw jëloo ñëw da ngay jël si joxuma la donc loolu je pense que ne du act boo xam ne vraiment war nañ ci mën a sukkandiku cest pour ne dafa invalider wala dafa valider c'est-à-dire foofu noonu il faudra ñu il faut mais a refusé de lui donner waaw de manipulation alors non y a pas de manipulation alors non que tey jii cest à loo xam si ne parce que tey jii fiche parrainage ko moom il a la DG en tout cas en tout cas